asalaamaaleykum gars yi vidéo tey dama leen di wan cinq erreurs yo xam ni mooy tax TikTok du percer sa ay vidéo maanaam erreur yi ngay def ba TikTok du mën a percer sa ay vidéo comme boo dugalee vidéo du am vue wala du bëri ay sa compte du bëri ay abone tey vidéo bi naa leen wan erreur yooyu nan ngeen koy éviter solution yi nan ngeen di def ba vidéo boo leen dugal mu mën a am ay vue seen compte mën a commencer di gagner xaalis bu fekkee compte bêta nga bëgg mën nga ñu contacter ci numéro boobu ci premier commentaire yi wala ci écran vidéo bi tamit bu fekkee nouveau nga ci chaîne bi bul fàtte abone activer cloche bi partage vidéo pour chaîne bi gën a am doole tamit bul di fàtte like vidéo bu am solo la chain chaîne bi chaîne bi ñi abonné gul ñoo ëpp fuuf que ñi abonné maa ngi leen ñaan ngeen abonné partager vidéo bi première erreur bi ngay def ba TikTok du mën a percer sa ay video mooy vidéo boo xam ni mauvaise qualité la vidéo bi qualité bi baaxul comme par exemple nga dem Instagram wala Facebook copier fa benn vidéo ñëw directement collé waat ko Facebook boobu du am qualité li ma lay conseillé mooy nga modifier waat vidéo bi am loo si yokk wala am loo si wàññi pour nga mën a am vidéo bu am qualité nga mën ko dugal sa biir TikTok pour mën a percer deuxième erreur bi ngay def ma maanaam mooy copier vidéo jàmbur comme par exemple defar vidéo dugal ko TikTok nga jëlaat vidéo boobu copier waat ko dugalaat ko sa TikTok saa nga modifier dara saa nga yokk si dara wala nga wàññi si dara loolu TikTok léegi daf koy détecter automatiquement comme par exemple boo demee sa application TikTok am foo koy vérifier pour nga mën a vérifier loolu da ngay ouvrir sa application TikTok nga ñëw ci sa compte léegi da ngeen di bës trois barres si kaw boo ñëwee trois barres yi nga bës TikTok studio boo bësee TikTok studio après ngeen dem ci vérification mooy plus d'outils après ngeen dem vérification du compte bu ngeen ñëwee vérification du compte ngeen bës ko après mu vérifier seen compte ba xam vidéo yi monétisable wala vidéo yi monétisable comme par exemple vidéo jàmbur bi nga copier fii dafay def affaire bu rouge bi bu ko defee rek mooy vidéo bi mënul monétiser vidéo bi du am vue du am du percer TikTok du ko percer sa à chaque fois bu ngeen vérifier vidéo bu mu def affaire bu rouge vidéo boobu du percer gis ngeen ñun suñu compte 8 publication la def ni les règles. ñoo respecté wul règle bi Après, dañuy dugg vérifier après bu ngeen démé ci seen compte bu ngeen vérifier huit yoy di ngeen gis ni vidéo yoy viralul amul euh, amul ben euh, vue wala euh, like gis ngeen à la recommandation gis ngeen huit vidéo yëpp loolu lañuy wax manam utiliser photo jàmbur wala musique jambour, wala vidéo jambour, dugalaat ko motax vidéo yi mënul troisième erreur bi ngay def mooy nga utiliser contenu boo xam ne dañ ko protéger par des droits d'auteur maanaam musique boo xam ni wala photo boo xam ni dafa am droit d'auteur nga dugalaat ko ci sa compte loolu TikTok sax mën na la ci jox ay sanctions comme mën na bannir sa compte comme wala ngay dugal ay marque wala ngay def ay comme ñi jaay ñuy dugal ay marque marque yi di feeñ yooyu TikTok daf koy détecter te bu bu ko détecter dafay dax sa vidéo boobu du percer teg si daf lay jox ay sanction ngeen éviter ko bu baax a baax a baax. quatrième erreur bi ngay def mooy di defay ay hashtag yu bëri comme ngay dugal vidéo def ci ay hashtag yu bëri comme pour toi di def yu jël hashtag yëpp def ko ci lool loolu algorithme TikTok du xam vidéo bi si lan lay wax moo tax vidéo boobu du mën a percer ndax hashtag yi nga def dafay bëri comme ngay def dugal vidéo boo xam ni ci commerce lay wax nga dugal ci ay hashtag filmu ay hashtag lu ne nga def ko ci loolu day tax TikTok du mën a percer sa vidéo boobu cinquième erreur et dernière erreur yi ngeen di def pour TikTok du mën a seen ay vidéo maanaam mooy di jugal di jël vidéo di ko dugalaat ba pare supprimer waat vidéo bi dugalaat ko supprimer waat vidéo bi comme ngay supprimer sa ay vidéo TikTok loolu TikTok algorithme bi daf koy bañ boo ko defee rek TikTok dootul percevoir sa ay vidéo vidéo boo dugal dootul am ay vues wala du am ay like loolu boo ko bëggee éviter mooy bu fekkee vidéo bi da nga ko bëgg a nga def ko vidéo privé vidéo boo xam ni yow kese yaa koy gis mais nga éviter di supprimer vidéo boo dugal nga koy supprimer waat di ko dugalaat di ko supprimer waat loolu mën na la ci jox ay sanction loolu algorithme TikTok bi daf koy bañ léegi dañ leen di wan solution yi ngeen di def pour à chaque fois boo dugalee TikTok TikTok di mën a percer sa ay vidéo premier solution bi maanaam mooy comme ça chaque jour ngay nekk ci biir application TikTok di seetaan ay vidéo di like ay vidéo ba xam ni yow doo robot nit normal nga mooy tax TikTok danaan nit normal nga moo tax muy percer sa ay vidéo tamit Euh, li ma leen beneen beneen conseil bi ma leen di jox comme ça ngeen di dugalaat comme boo dugalee benn vidéo percé wul nga koy dugalaat bu percé wul nga dugalaat ko bu percé wul nga dugalaat ko dina am boo xam ni forcément dina exploser dina percé léegi yeneen yi nga dugaloon nga def ko vidéo privé vidéo boo xam ne yow kase yaa koy gis comme yi nga njëkk dugal vidéo vidéo nga njëkk dugal percé wul da koy def privé nga xam yow kase yaa ko mën a gis troisième conseil bi ma leen di jox tamit mooy bul mës supprimer sa ay vidéo comme li ma leen wax sànq vidéo boo dugal bul ko mës supprimer def ko mode privé beneen conseil bi ma lay jox mooy bul di gëj dugal vidéo comme par exemple chaque fin du mois benn vidéo nga ciy dugal wala genre yooyu li ma lay conseiller mooy chaque jour dee dugal benn vidéo mooy tax TikTok tamit di mën a percer sa ay vidéo beneen conseil bi ma leen di jox mooy hashtag ngay yemale hashtag yi ngay def comme bu fekkee commerce ngay def nga dem tapé ci barre de bi am na fu ñuy def hashtag commerce mu indi la hashtag commerce yëpp wala hashtag comédie mu indi la hashtag yëpp nga del ci benn hashtag wala ñaar comme par exemple hashtag vidéo boy dugal nga dugalaale ci viral euh, hashtag boobu bokk na ci gaaw a maye vue ci biir application TikTok gars yi li moo nekkoon vidéo tey bi bu fekkee vidéo bi neex na leen bu leen fàtte abone activer cloche bi partager vidéo bi pour chaîne bi gën a am doole tamit bu leen fàtte di like vidéo bi am solo la chaîne bi kon gaay ba beneen vidéo incha allah